nan nga jàngate le le discours de de de Sonko euh, épargné na Macky Sall mais dafa mel ni euh, la nouvelle cible c'est le candidat de Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba euh, ay at ci ginnaaw waa waa Benno Bokk Yaakaar euh, dañ daan tuumaal Amadou Ba ne moom ak waa Pastef y a une connivence Ousmane Sonko dina attaque ñëpp moom daf koy daf koy épargner mais. avec cette campagne-là on serait tenté de se dire que c'est peut-être euh, jongante la mais nan nga jàngate le discours bi mu am euh, envers Macky Sall envers euh, le candidat de de de Benno man su ma doon Ousmane Sonko ak lu ma bëgg bëgg fajal Macky meram ak lu ma ko bëgg bëgg xuloole am na loo xam ne duma ko def mukk ci àdduna jëmale ko ci Amadou Ba ndax la man dafa am lu fekkee dudd ko en tant que observateur politique gis nga Macky Sall bi mu càpp ni dañuy dàq Ousmane Sonko Amadou Ba dafa bañ ba lànqekaay ne ko président mu ne ko waaw mu ne ko Ousmane Sonko jeune la fonctionnaire la Sénégalais la bu am njaboot euh, xëy na peut-être def na erreur mais boo ko dàqee di nga ko laloon njaboot donc nañ trouver solution ak moom dañ ko dàq président insisté waat Amadou Ba ni ko maa koy raconté d'ailleurs ci livre ne ko président mu ne ko waaw mu ne ko même bu dul sax xëy na waa ji père de famille la ak yooyu ñu war ko xool xool ne am na jabaru bu war a dundal ak yooyu politique sax ci politique dëgg-dëgg suñu intérêt du ndax Ousmane Sonko suñu intérêt comme moom day nekk fii di débale maanaam lu xew ci kër gi mu génne ko ci bi wax ko man mën naa ko affecté ci service boo xam ne du gis dara lu muy wax mais ñu bàyyi ko suñu biir parce que boo ko dàqee da koy def victime mu génn nga may ko loo xam ne nii mën na dem ba loolu may ko doole Macky Sall bàyyi bu set dem gars yi na ko yow tu naa rien compris Amadou Ba bii mooy jël Macky Ousmane Sonko di ko dóor sa kaw loo tax bëgg koo dàq maanaam élément la moom moo créé parti bi moo def lépp dégg de sorte que Macky Sall bi ñuy dàq am bi ñuy dàq Ousmane Sonko daf ne daf ne Amadou Ba mën a am soit nga préparer projet de décret bi ma dàq ko wala yow ma dàq la cest à nit bu àggee ci niveau de risque boobu pour yow ba pare nag après lu ne Amadou Ba daj ko ndax Ousmane Sonko problème bu Macky Sall amee Amadou Ba rek ñi informé ñëpp xam nañ dañ parce que dañ ko dañ ko soupçonné ni moom mooy financé Ousmane Sonko moom mooy déglu Ousmane Sonko maanaam problème bu Amadou Ba am moom ak Macky Sall ci Ousmane Sonko la kooku ñu informé ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp xam nañ loolu kenn umpale ko ba pare aussi ma xam ni Amadou Ba dafa jàngal Ousmane Sonko énaam yamul foofu bi mu ko jàngalee ba pare. mu ñëw direction des impôts domaines mu accueillir muy takk jabar mu bokk ci ñi ko ñaanale ba dugal ci alal sekk ak famille Ousmane Sonko teraanga ba yaayu Ousmane Sonko di ko gërëm fu mu toll am sax lu mu def ci seen famille ah nit nag boo jaaree ak moom fépp yépp la ak loo bëgg bëgg bëgg neexal Macky Sall ak lu protocole Cap Manuel neex neex neex àdduna war laa jaral nga gën ci mais Yérim ah <laughs> on est en politique hein? ah non politique. te te te Ba Amadou Ba xaaral Amadou Ba defar Amadou Ba Sonko lu raw loo xam ne ab euh, Ablaye Wade defal na ko Macky Sall te Macky Sall ba mu waree jàmmaarloo ak Ablaye Wade dafa jàmmaarloo ak moom. Euh, Karim Wade aujourd'hui il n'est pas dans ce pays il vit en exil on est en politique xam nga politique. mën naa politique te accepter courtoisie accepter diggante nit ak nit